précédent bi fi jóge daf ñu doon violenté fi tàmbalee Ziguinchor dañ faa fekk yaay Ousmane Sonko ne dañ fay jël fiche de parrainage loolu violence la mm. Ousmane Sonko doomam dañ koo tere woon dem jàngi barricade këram pendant cinquante cinq jours xale bi échec bac loolu violence la wala du violence Ousmane Sonko saa yu génnee war dem wuyu ji moo xam tribunal la moo xam leneen la ñu gazé ko dóor ko ay grenade lacrymogène Ousmane Sonko saa yu ñu ko autorisé moom ak njabootam ñu marche bu ñu paree Aliou yow journaliste nga observateur yi gis nga muusu sachet sa bu ñuy naanee ndox du fa traîner suñu paree dañ koy ramasser ba mu set ñu daal di dem ñun daal li nga xam ne de dund nañ ko ci 10 ans yu mujj ñi ak régime précédent mooy tout le temps que ñun ñu génn dañ ñuy violenté Ousmane Sonko fii la génnoon di ñu gazé ko tey ki ko doon gazé yàlla dogal moo nekk moo nekk moo nekk gouverneur Saint-Louis mu demee Saint-Louis ci setsetal bi kooku moo ko doon accueillir moo tax doomu aadama lu ne war nga cee seet yàlla war nga cee bàyyi yàlla keroog bi Diomaye faloo nekk président de la république ñu taxaw Mermoz à 20 bi résultat yi commencé daanu gendarmerie bi ko doon bi doon violenté Ousmane Sonko ñoom Moussa Fall ñu doon dóor gars yi ñoom ñoo ne ah léegi ba lu la léegi ko mooy mënoo distinguer Ousmane Sonko premier ministre Ousmane Sonko président du parti fileeg yow sa xam-xam ak sa matat yi mënu laa permettre nga mën a justifier Ousmane Sonko président de parti Ousmane Sonko bu muy ñëw Grand Théâtre jeunesse patriotique du Sénégal ñun ndaw Pastef ñoo ko invité woon pour mu animer conférence mu animer conférence am ba pare mu def ce que l'on appelle show politique ci biir show politique boobu noonu mu joxe si quelques axes yi nga xam ne fa la bëgg a jëm moo tax keroog président bi mu génnee ak communiqué communiqué conseil des ministres bi ñuy wax ci euh, réduction des comptes ñuy wax si déclassification des rapports et cetera et cetera te booy xool loolu Ousmane Sonko jotoon na ko junj keroog bu mu ñëwee fee nii mais li mu doon expliquer bay bay accuser le président du conseil constitutionnel da ba accuser ki nga xam ne tamit euh, du accuser sax ba muy dëggal dossier Prodac bu am mu ne li ngeen doon bañ ma génnee ko su ma ko génnewoon ngeen ne recel de document la tey de ci mbirum yàlla ak ndogal yàlla yàlla def na ni rapport boobu mu ngi sama kaw taab mu ngi sama kaw taab ñi ngi dem ci ré ñi ñi ngi dem ci no ñi ngi dem ñi ngi dem ci rédi ñi ngi dem ci réduction des comptes uh-huh. lépp dana leer ku fi ki nga xam ne di nga da nga guxoon suñu alal di nga ko gox est-ce que jar na muy mën a xam ne tu premier ministre waxaal euh, rek nga bàyyi épisode boobu jàll le président du conseil constitutionnel quand est-ce que c'est son rôle mais Ousmane Sonko li tax mu ne président conseil constitutionnel corrompu ak leneen mais fii képp ki nga xam ne ni ki yow juriste nga te tu es animé de bonne foi yow mii sax nga xam ne tu es animé de bonne foi boo dul juriste nangu nga ni lan moom fi laisse-moi lan moo taxoon mu ne président conseil constitutionnel lu tax muy précipité wu ne leen déri euh, vertigu kasa euh, vertigu ko kii bi cour suprême bi ci dossier ak Mame Mbaye nañ ko ko indil balaa ñuy pro balaa ñuy def la la promulgation de la liste des candidats lan la président conseil constitutionnel di précipité wu si loolu te boo xoolee partout où le droit a été dit Ousmane Sonko a obtenu la vérité partout où le droit a été dit Ousmane Sonko a obtenu Ousmane Sonko a obtenu man mon professeur parce que boo nekkee faculté des sciences économiques et de gestion sa première année ba master 2 da ngay def ce que droit mais en introduction droit ki ma yoroon mi Ousseynou Samba un grand spécialiste en droit pénal souvent dans les plateaux de télé mu ne lorsque il y a viol il y a menace de mort le, et le viol est criminalisé. La menace de mort n'est pas criminalisée. En matière pénale comme en matière criminelle, le juge devrait tout simplement prononcer le viol. S'il ne prononce pas le viol, il devait tout simplement y avoir équipement total. Et tous les grands pénalistes, si le professeur Ndiak était d'accord que si Ousmane Sonko topé ou viol, mais euh, corruption à la jeunesse, il devait tout simplement être loolu du man maa ko wax c'est des spécialistes de droit donc non non c'était juste pour won la ni c'était juste de bonne foi pour won la ni Ousmane Sonko bu taxawee mu ji mu mu wax mu tiiree waaw affaire Mame Mbaye Niang mais foofu non foofu développé naa la ma ni la lan moo taxoon président conseil constitutionnel di teg pression waa cour suprême ne leen nañ ko indil dossier de cassation bu Ousmane Sonko sur le dossier te heure bi jotul te heure bi jotul mais en espace non yow fan nga musee gis en espace de six mois ñu jugé la première instance ñu jugé la appel. ñu def ñu def non ñu def loolu ngi doon wax ci magistrat yi de may de dama lay defaral générique bi la fan nga musee gis Sénégal bi Sénégal di Sénégal ñi ne la dossier ñu jugé ko instance jugé ko cour d' yóbbu ko cour suprême en espace de six mois. bi droit di droit ba tey loolu musul am c'est seulement sur le cas de Ousmane Sonko ci la loolu am te loolu da koy nangu si de bonne foi. non da koy nangu si de bonne foi. non munu. sëñ bi loolu nangu nga ko war a nangu Ousmane Sonko des élections l'attendait non c'est normal que que que dossier boobu gaaw tu n'es pas de bonne foi xam nga bu ñu ko yéexaloon bu ñu ko yéexaloon ba élection yi jàll ñu ne ñoo xam tey yéexal ko élection yi jàll bu gaawee bu gaawee pour ñu mën ko liggéey avant élection yi ñu ne non dañ ko préparé yéen après à la limite tu n'es pas de bonne foi malheureusement tu n'es pas de bonne foi non man man passif ne ma tu n'es pas de bonne foi loolu du ma jaaxal il faut s'opposer de la façon la plus il faut s'opposer de la façon la plus républicaine mais malheureusement dans le débat d'hier vous êtes mal placé vous n'acceptez pas et vous n'êtes pas de bonne foi passif est mal placé passé nee na yéen moo wax na ko léegi nee na yéen yéen a fi nekk doon donneur de leçon débat di alors que li ngeen salfaañee réew mi ah di saaga di xaxaal et opposition président bi tey opposition président Diomaye Faye li mu defoon bañ jàpp ko ah, opposition dégg nga li mu ci waxoon opposition constructive débat d'idées proposition de programme à chaque événement qu'on doit se rencontrer avec des Sénégalais en scrutin que ça soit local législatif ou présidentiel on les avait proposé un programme mais débat d'idée boobu tey moo ñu propulsé si 10 ans ñu faxas ñi fi newoon tous les anciens politiciens yi nga xam ne ils faisaient partie du régime de PS du régime de PDS du régime de Benno Bokk Yaakaar dañ leen yóbbu à la retraite je passe de nom ñii soog juddu Peut-être, mais le niveau est faible. Hein? <laughs> peut mais le niveau est faible. On va essayer de voir d'ici les législatives ce que ça va donner, en attendant de faire une dernière analyse. Mhm. Mais par conséquent, il est en train d'apprendre. Il va mûrir encore. Il reste beaucoup à pendant les années à venir. li mu wax aussi ci yàq dëkk bi loolu tamit. am pas de responsabilité nag ñun yàquñu dëkk bi nag wax dëgg yàlla amul kenn ku a ne ah, na ko nee a ni enquêteur ni magistrat mais scénario bi am yaraax ba ñu ne ñun ñoo def ci bus bi euh, kii nu mu tudd cocktail molotov ba ñu jiñ ay terrorisme Aliou attentat boo koy def doo taal benn bus scandale bi am université mus nga gis étudiant muy grève mu taal centre des œuvres université de Dakar yow tu spécialiste en communication bi ñu taalee université 40 après directeur COUD euh, précédente bi Maguette Sène lan la wax on a plus de traçabilité au cour des demoon na fa ak OFNAC ñu commencé ko auditer mu war a daanu c' le même scénario qui s' produit au niveau du FONGIP avec Doudou Ka. Mm-hmm. le même scénario qui s' produit au niveau du caisse de dépôt de consignation avec Alioune Sall. Mm-hmm. avec Karim amoon na ci building administratif moo tax ñu tabaxaat building administratif donc. defe naa ne ñun de ku ñu xaar ci violence doo ñu fa fekk ñun nous sommes dans la construction au contraire on a Kër Massar rey fa suñu militante ñun ñaata moor la am balaa ñuy accéder au pouvoir te pourtant ñun la ñuy violenter wax a noppi defe naa ni Ousmane de mu ngi noppi di liggéey liggéeyam mais quand le temps de la politique arrive il fait de la politique te li muy wax Colobane mbir yi bu mu xewee Colobane dès le non non non la ma bëgg a wax dañ kaa yuuxoo wala non Ousmane du kenn yuuxu man de gisuma fu ñu man fu nit ñi yuuxu Ousmane li ma gis ni Ousmane dem na à l'oreille attentive mu déglu ñi nga xam ne dañ leen dégeer pire ah. mu waxtaan ak ñoom ci njekk li mu njëkk def le lendemain dafa ne l'administrateur l'administratrice du DER Aïda Mbodj mu recevoir leen tu as les images en tant que non maa ngi Aïda Mbodj Aïda Mbodj Aïda Mbodj recevoir leen buñ ko Aïda Mbodj dem recevoir leen mais bi ñu ci tegee 72 heures après premier ministre boo seetaanee journal à la RTS da leen recevoir au niveau de la primature te defe ni moom li ko war yëpp en tant que mooy déglu sa peuple déglu ñu ngi déggeer piir xool noo leen mën a jàppale xool noo leen mën a accompagner nga jëlee leen ci informel yóbbu leen ci formel te moom boo xoolee loolu ça a toujours été son combat depuis bu muy nekk inspecteur des impôts de centaines na ko DRD yéen a ko doon ŋàññi de. jël DER comme solution. mais non non jëluñu DER comme solution mais bien sûr. Aïda Mbodj doit tax ngeen Aïda Mbodj mu rencontré Aïda Mbodj doit rencontrer non DER du jël rek lay recevoir. DER non DER du recevoir seulement DER du recevoir. waaw dama ne la non déglu ma DER. dama ne la doo DER amul prérogative de recevoir les jeunes. DER ñëpp lay recevoir. mais day recevoir képp kuy porteur de projet boo demee. DER da lay recevoir képp ku war a financer comme bailleur. temps yi banque islamique de développement dem nañ fa. Euh, FAO dem nañ fa banque mondiale dem nañ fa. dañ ne lu tax lu tax mais est-ce que DER non xaaral Abdou est-ce que DER tamit mën na financer ambulants yëpp aussi quand même. mais première des choses à faire d' abord de les aider à les former c' à dire les formaliser nga former leen formation. ba pare nga formaliser leen troisième chose nga nga garantir leen accompagner leen ñu dem ci banque yi nga xam ne comme je pas faire la publicité mais y a des banques boo fa demee nga nekk porteur de projet DER da koy garantir wala FONGIP garantir ko su ko defee ñu accompagner la ne la d' léegi DER am na nu lay accompagner ak FONGIP ba nga xam ne ki taux bi dina nekk 1 à 2 pour cent loolu la mun yaa xayti mu laa ñuy gunge jeunesse. très bien euh, ñu avancer